gis nañ ne c'est pas du tout évident ah mais tout le temps rek yaa ngi jéem a xool euh, noo dajeeg say am di jàmm hmm. yaa ngi jéem a xool euh, nooy nooy sikkeeg maanaam euh, jàmm ak ñi nga xam ne ñooy say ay njëgënaay donc voilà initiative boobu nan la la dikkee ah mais c'est normal parce que euh, euh, euh, moment bi moment boo xamante ne ñun yëngu. lay wax donc ça fait l'occasion nga sa xarit yi. Mm-hmm. abi d'enfance yi. Ah, sa nawle yi nga xamante ah, ay faa boole mhm. ay morceaux surtout saa waay donc c'est très important yu mhm. mel ni moom day boole xam nga moom day boole c'est important mais ce qui l'impressionne les Sénégalais ce qui l'impressionne les fans mooy que ni dañoo gis ne Wally c'est pas n'importe qui en fait euh, c'est c'est une personne spéciale mu nekk ni ko xam ne ci statut am bu am bëri nañu ci tolloon pour nga am accès ci ñoom sax dafa metti c'était pas du tout évident ñu gis ni tout le temps mu ngi jéem a rapprocher ses femmes tout temps mu di jàmm mu nekk loo xam ne c'est vraiment. les médias. tout à fait tout à fait il est toujours avec les médias surtout ñun ñun moom. j'ai une seule question. Oui. Euh, Wally, oui. euh, on y a aussi des critiques qu'on euh, sur le rapprochement des médias ak yooyu noonu. Mhm. Euh, gis nañ que ñun on peut témoigner. Mhm. gis nañ jëf yu baax yi ngay def. Mhm. avec les médias sénégalais. Euh, lan nga mën a sànni sa kàddu ci mhm. loolu mhm. parce que nous on peut rectifier mhm. on peut dire non on l'a déjà fait quand même vous êtes très proche des médias on l'a déjà fait voilà <laughs> ah, lan nga mën a sànni ci kàddu bu rafet ci nga ah, affaire yi moom ah waaw ba ñekk laa mel ñoo dëkk voilà waaw bu mënul ñàkk la mais bon euh, je suis pas parfait non je suis loin d'être parfait nit la euh, nit matul la set je suis pas parfait donc média bi tamit ñi ko yor ay nit lañu. Mhm. donc ñu ñëpp kenn parcours. donc mhm. d'habitude on dit bien que euh, en fait euh, excusez-moi du terme mooy le manque de communication. Mhm. mais nous on peut témoigner que vous avez une, une très bonne communication. communication même waay. voilà vous vous rapprochez des médias. vous les conseillez loolu gis dafa moment am je pense que loolu moment la woon. non ah jàll na quoi. waaw en tout cas daal moom média bi dafa soxla Wally mhm. Wally soxla média bi you know sama kaddu dem mooy sama kaddu tey. Mhm. mais lan moo nekk ci derrière simplicité boobu parce que wax naa ko léegi mas mhm. nga këf question bi mhm. il n'est pas n'importe qui en fait. du du n'importe qui ngay jege nii comme ça. donc euh, maanaam simplicité am. maanaam accessibilité am. Wally c'est quoi c'est quoi en fait. le secret de Wally Ballago ah, Seck. parce que li ma doon man def ma ko suma bopp. li ma doon defuma ko suma bopp mm. tàmmu ma ko aussi pour mm. def ko suma bopp mm. jaar-jaar la suñu borom boo ma ci jaar alors euh, yennu ko bisul ci man mm-hmm. ndax jox na ma lu ma ko entraîné mm-hmm. alhamdulilah donc man lii rek moo ma war mm-hmm. et puis war rek euh, yàlla mooy def star dëgg la maar walaay dëgg la maar borom moo koy defal boppam walaay ndeysaan yàlla moo def ci man loolu donc soxlawul ma koy nga koy forcer wala rareté c'est bien beau yëpp c'est bien beau mais day jamono ji vingt et unième siècle lañ toll nit ñi soxla ku leen yër ak leen di gëstu c'est très très important et foru Wally c'est parce que damay doxi samay soxla ba léegi. Mhm. damay naan ataaya damay doxantu ci parking bu ma neex. Mhm. damay seeti sama gars yi damay fubal si. Mhm. damay taxaw. jënd kafe loolu mhm. loolu yàlla moo ko dogal alors ah, ça ne change rien du tout li ma doon <clears throat> Mass il fait partie des rares artistes yi nga xam ne dañuy dem pays ba pays a déplacer les médias loger leen jox leen per diem toppatoo leen teral leen fii ci réew mi mu nekk loo xam ne on profite de cette occasion voilà voilà voilà ki la dëkk ki la dëkk voilà ki la dëkk l'équipe de Sénéweb Dakar Live. xamul lu bon ñeneen ak ñeneen on vous remercie. non mais c'est vraiment impressionnant. voilà ah, c'est vraiment impressionnant. du question loo xam ne c'est pas pour les citer des fous. mais dafa di nit koo xam ne. mariage lu baax. soo goree da nga koy wax man ñu bëree bañ na ko ba jamono ji ba ci Seneweb dañ naan Nabou Wally c'est pas ni eh, dama ko bëgg wala dama ko fan non non dama gis li nga xam ne moom moo di professionnalisme bi muy wane ñun moom la ñuy wax a besoin de ça nous des hommes de médias dañuy liggéey moo ñu war xam nga lu ñu soxla ku ñuy permettre suñu liggéey mu yoom ak ku ñu yëg ak ku ñu may l'accessibilité donc voilà Euh, son staff. oui ñoo yëg média yi. dañuy soutenir. tout à fait dañuy jàppale ci liggéey tout à fait Faramareen ñun ñëpp zéro faute. dañuy woo téléphone dañu gaay waali tey am na match wala dara loolu ça nous motive. man ça ça nous permet même de venir man je tenais vraiment je tenais à soulever à ah, man je tenais vraiment à soulever ça parce que lu ah. tax même démb mm. yaa ngi gis anniversaire. ñu gaaw dañoo ñu gaaw Euh, Nabou bu Waly donc pour leeral sénégalais yi li tax man ma rapproché woon moom du lenn parce que gëdd bi nga xam ne rek jox na ko médiation ah. c'était juste ça on te remercie on est très content franchement parlant mille merci à vous voilà mille merci à vous je tenais vraiment à dire ça